ci am mbégte di dellu si di ànd ak yéen ci euh, timisactu.net euh, feggo ak Timis TV ngeen di ko am ci YouTube bi ñu dellusi nag euh, jàkkaarloo ak benn kàngam ci wàllu tasum xabaar ci diiwaan bi waaye ci réew mi yëpp Alaaji El Modou xam nañu ko ñu ñëw tey seet ko fii ci këram ngir fas yéene jàngat lenn ci ay xew-xew yoo xam ne jot na fi jaar ci at mi ndax xam nañu ne fii ñu toll 2020 euh, bi mu ngi jeex xew-xew yi nga xam ne jot na fi jaar xañ na du lépp lañ mën a wax waaye xañ na ñu tànn ci ay benn benn rek ngir euh, bokk jàngat ko lépp rek jubluwaay bi nag mooy rek euh, ay doomu aadama lañ te lu nekk tamit doomu aadama da cay am xalaat te xalaat yi tamit ku nekk war na ko mën a cariñoo ñu ñaan yàlla rek lépp nekk ay njariñ yoo xam ne ñun ñëpp dañ koy bokk jariñoo ji xam naa dañ lay jox nga nuyoo ak euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan waaye nga wax ñu tamit kan mooy alaaji El Modou Gueye jërëjëf euh, maa ngi lay nuyu di nuyu euh, vraiment site bi nga xam ne mooy Timis Actu xam ne yéen a ngi def liggéey bu am solo ci ci dëkk bi également ci rapidité ci wàllu ay information yu diversifié yoo xam ne yéen a koy jox ñi nga xamné ñom ñoy population yi dëkkee diggante Touba ak Mbacké man nak euh, bon maa ngi tudd El Hadj Momadou waaw El Momadou diminutif la wañi la mais El Hadj Momadou bon euh, nekk un enseignant de formation mais aussi euh, tout pratique ma mujj ñoom nekk un fonctionnaire également ñu yobuma ci service de communication ma def formation dans les écoles de de, de journalisme yu ñëwaat le sama liggéey yépp ci walu communication la mais également nek journaliste bo xamné correspondant ci ay jaar ci groupe de presse yu bari yo xamné mën nañ ci gimiñ ci gën rañé moy wal Walfadjri foofu lu nit ñi xamé voilà loolu dal mën naa ko wax euh, di développer également euh, ay recherche ci walu communication politique communication digitale ak euh, yeneen a ni email, mais également de développer benn site senactu.net, point net correspondant Vox Pop ci presse écrite de collaborer également ak une télévision TV présentement. jërëjëf kon euh, alaaji euh, fas yéene nañu waxtaan dugg nu mu gën a gaawee rek ci suñu waxtaan ñu ci jiite rek li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne dal na ci ko àdduna bi yépp Euh, te nuyoo ci dëkk bu sell bi daanaka ci weer yu njëkk yi rek euh, jotoon fi nag indi ay coow yu bare ay wax yu bare ñii ne euh, ñii di dëggal ñii di weddi waaye xañ na loolu taxuñu jóg dañu tax jóg dëgg-dëgg mooy matuwaay yi nga xam ne kilifa yi jëloon nañu ko ci tëj marché ci annule ay événement muy màggal yi nga xam ne amoon na fi waaye tamit jumaa ji sax daanaka ñu demoon ba tëjal ko askan wi daanaka ay ñenn rek lañ jagleeloon ñu fi dugg di julli jumaa ak yu mel noonu matuwaay yooyu ñu jëloon yéex jur na résultat bu baax lool wala résultat bu yemamaay wala noo ko jàngatee. waaw euh, mën nañu wax ne que euh, kenn du wax ne jurul résultat parce que euh, xëj na li ñu résultat yi ñu soxla woon moom lañu amul mais quand am na ay résultats yu mu yu mu joxe parce que boobu boobu ñu koy def. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo séq nguur gi yore yore yore état bi demoon nañ ba xam ne ni réew mi toll na foo xam ne lii lañu waroon def parce que ci jamono jooju feebar bi niñ ko xamee nii ba miin ko miinuñ ko woon bon euh, il fallait ak niñ ko doon dégg bitim réew ak ni mu fa doon reyee ay nit tàmbali ci Chine ci ci boobaak léegi mot na at parce que ci décembre bële passé la woon donc euh, kon motuwaay yooyu ñu jëloon jàpp naa ne moo nekk motuwaay yi nga xam ne moo gënoon daal ci jamono jooju. waaw. suñ ko méngalee ak euh, vague bi nga xam ne ñëw na euh, lan la ñu war a mën a def ndax dañoo war a teg suñu tànk wala kilifa yi dañu war a teg seen tànk fañ ko tegoon wala ndax am na ay coppite yu ñu war a mën a defaat ngir euh, mbir mi wax nga ko miinuñu ko woon léegi askan wi miin nañ ko te nit ki sénégalais surtout lu mu miin ñaar daf koy daf koy ñeme naka lañ ci war a mën a doxee yow naka nga war a xalaat surtout ci wàllu communication. waaw nga fii moom. communication bi ni mu war a demee mooy euh, d'abord xam nga fii ñoom duñu ñi ëpp bokk ci askan bi dañoo mësta gëm feebar bi dañu jàpp ne lu amul la loo xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko créé donc xam nga loolu su amee euh, ki nit mbir bala nga koy bala nga koy mën a moytu danga koy gëm d'abord ne am na donc boo gisee nit ñi ni ñuy ni ñuy comporté woo ak ni ñuy doxale fii da xam ne ñëpp ci ñoom gëmuñu feebar bi Euh, ensuite jàpp nañ ne am nañ nit ñoo xam ne aussi dañuy jàpp ne dara waru leen mën a daal euh, àgg nañ foo xam ne dara la waru leen mën a daal donc communication bi ci foofu la war a accès surtout maanaam ñu xam ne feebar bu am la te day reye ñaareel bi aussi ñu jàpp ne mën na dal nit ku nekk ak koo mënti doon donc yooyu bu ñu ko xamee ba pare nag léegi. bu ñu def rek une communication globale de masse nga xam dañ koy dañ ciy yemale ñëpp parce que feebar bi am na ñoo xam ne ñooñu la gën a sonal ñooñu lay gën a andil problème ñooñu lay gën a mën a faagaagal ñu def cible bi foofu maanaam nga xam ne li ñuy li ñuy andi ci ay pexe di ko nas ak li leen di sensibiliser ba ñu mën a moytu feebar boobu ñu jëmale ko ci ñooñu muy surtout les personnes âgées mooy ñi nga xam ne ay mag lañ. ba parle aussi di recevoir ay mbooloo parce que fii dëkk la boo xam ay mbooloo dañ fiy ñëw di fu pèlerinage la ba pare aussi ay nit yoo xam ne dañuy amee ay yeneen feebar yoo xam ay maladie chronique lañ koy muy ay ne nit ki doy nekkaale ak moom di ak giiru dundam lu ay diabète lu mel ay hypertension wala ay ay yu mel day faral ñooñu boo demee ba ba conscientiser leen xamal leen ni yéen feebar bi xejut ci yéen lu am la te ñi ngeen gis muy faat ci réew mi ñu doon ay kilifa euh, wala ñu doon ay nit simple sax wala ñu jege la wala ñu nekk sa mbokk noonu mu leen faate yow mii mën na la fee ban bàyyi ci loolu su ko defee bu ñu jëlee conscience ci loolu ñooñu moytu xam ñoom ni ñuy moytoo xam ni ñuy aare seen bopp xam ni ñuy respecter distance yeeg yeeg yooyu comme li ñuy wax yàlla mën na def xëj na euh, le temps que peut-être ab vaccin wala dara di ñëw feebar bi mën fee jóg wala mu bañ euh, def ay kii mais situation bii am ni nga xam ne ay cas grave dañoo bëri ci Touba ak ay ay ay nit yoo xam ne ñi ngi faatu parce que ñi ngi jot régulièrement bulletin bi da ngay xam ne ni ni mu yokkoowaatee fii ci jamono jii nii. te li wóor ne loolu li ko andi mooy benn relâchement nit ñi ñoo dem ba bàyyeeku ñii nga xam ne gëmuñu woon gën a dooleel seen bopp ci ñàkk gëm googu ba pare di ci yóbbaale ay nit. Mhm. Euh, ñu ngi xalaat euh, nguur gi mm, voté benn euh, loi boo xam ne dafay may njiitu réew mi saa su ko neexee rek mu jël dogal ci andi li nga xam ne mooy état d'urgence walla yu mel noonu ndax jàpp nga ne tey gën na. si réew mi fi mu toll nii ak fi nga xam ne jot nañ ko jaar ci vague bi weesu. waaw ah, waaw xam nga xam nga parfois nit ñi euh, euh, nit ñi jote information yi du baax donc xam naa yow li ngay bëgg a wax mooy li ñu mujjee voté jëm ci wàllu modification si loi état d'urgence loolu sénégalais yi xam nga ñoom ñi ci ëpp dañ leen di induire en erreur dañ jox de fausses information modification loi boobu xam nga état d'urgence yemul rek ci wàllu. état d'urgence politique wala wàllu réew mi am jafe-jafe sanitaire yooyu mais mën nañ dem catastrophe am maanaam jéey ju mag am bu doon comme ci réew yi nga xam day am ay tremblement de terre wala daal jéey ju mag comme lu mel ni bateau Joola ak yooyu yu mel noonu bokkul woon ci loi bi nga war ci mën a jël état d'urgence te réew àdduna boobu dañ koy def parce que France wala yeneen réew da gis wala wala États-Unis da gis benn tempête sax ngelaw métti war fa jaar gouverneur ba décréter état d'urgence loolu rek la loi boobu loolu kese la loi boobu loolu kese la donc euh, may sañ sañu njiitu réew mi en cas de catastrophe mu mën a décréter état d'urgence loolu lu baax la mais aussi xam nga euh, bu fekkente ne ay nit dañoo nekk ci fitna ngay topp ay procédures également loolu war nañ ko mën a teggal njiitu réew mi ça ne pose pas de problème temps plus que du loo xam ne tout le temps lay am réew mu ne ci fitna. nga war a di def ay passation de marché di jaar fee di jaar fee wala di di jaar foo xam ne ka ngay wollu day gudd wax dëgg yàlla ñu jo jox la yoon wu gën a gaaw pour nga jaar man gisuma ci benn inconvénient. dellu soit ci dëkk bi Touba euh, ci li nga xam ne moo di euh, wàllu ndox mi ndoxum Touba am na ay jafe-jafe euh, léeg-léeg nga dégg ñu ne la forage sangam panne. Euh, forage sàngam paan na naa nga ma koy defar dugg na fii génn na fii ñenn ji dañu wax ne tubaa dañu dem sax ba war a fay ndox war na mën a régler problème bi lan nga xalaat ne tey moo waroon mën a nekk saafara problème mu ndoxu waaw loolu xam naa ne lu lu jafe parce que xam nga Touba dëkk bu mag la même Dakar bi nga xam ne sax mooy capitale bi dañu am problème ndox waxantuma laa Touba bi nga xam ne bon euh, bi ñu koy bi ñuy defar ki musul nekk ci benn situation bu formel ci wàllu ndox. donc ndox mi jaayuñ ko euh, commune commune rurale la woon communauté rural la woon ñu ñu mu nekk communauté rurale boo xam ne euh, bu ndaw la woon cinq cent et quelques hectares euh, ñu comme dëkk àll yëpp ci jamono jooja ndox mi kenn daaw ko fay loolu nag nekk une tradition mais dem nañ ba jëmmi jamono ñu gis ne dëkk bi yokk na yokkuwaay boo xam ne wax dëgg yàlla installation yi amoon muy euh, installation yiñ fi defoon yi màggat na yi dëppatul ak jamono yi bënd na di di di bàyyi ndox mi muy dem ci suuf ak yu mel yooyu bokk na ci li indi gàllankoor jëm ci wàllu ndox mu ñàkk fu aussi ay nit yu bëri di daje wax dëgg yàlla période màggal surtout nga xam ne nit yu bëri duñuy daje ay ay ay millions de nit même réew yu mag yi ay ay ay màkk ak yooyu dañuy am problème boobu kon Touba mënul nekk exception ci loolu léegi nag lan moo mën a nekk solution ci côté boobu mooy nit ñi fexe xool ay pexe pexe bi ci jitu mooy dëkk bu toll nii d'abord mën nañu wax ne que mën nañu diversifier les sources yi nga xam ne fa la ñuy jëlee ndox mi mu bañ ci nekk forage yi kese def ay peut-être. Euh, dem fu gën a soriwu jëli fa ndox andi mais aussi investissement yooyu nit ñi di génne xaalis di ko fay maanaam man sama xalaat te loolu yàgg naa ko wax wa gratuité ndox mënoo am gratuité ñu may la ko ba pare nga am qualité ba pare ne il faut mu doy ki lay may li mu yor dong la lay may mais nag boo fayee xëj na mën nga demander benn parce que même ñiy fay dañoo am problème dakaar gis nga dañoo am problème. mbàkk gi parfois ñu am problème waxantuma laa nag koo xam ne fayul donc moom ndox mi même bu robinet am yàqoo du ko defar bu tiw bi yàqoo yoonam nekku ci fu ko neex la koy jaarale donc kooku su manqué ndox bu mu bu mu ko na tuumaal boppam moom moom boppam la war a la war a la war a xoolaat parce que amul benn dëkk ci àdduna bi bo xamné ndox mi presque gratuit comme ni mel fini amul donc même màkk bi nga xamné ki ndox mo fa gëna cher carburant ñi fay dem xam nañ ko ndox mi mo gëna cher carburant bi jënd carburant mo gëna a yomb jënd ndox nga xamné ne kon ndox lu précieux la té lu ñu war la sa bo delloo ci l'islam parce que ndox source de vie la mën nga bàyyi lu nek mais ndox mënu ko bàyyi donc kon euh, problème bi c'est un problème global mooy même même il ñu ñu génne ci suñu xel génne ko ci xelu ñenn ñi maanaam euh, que ne euh, man daal bu lii bum amee ci man lii bu amee ci man comme man may xalifa bi tey bu bu bu fayum ndox amee ci man yooyu ay la ñi nga xam ne bëgguñu def benn effort rek ñoom ñoo koy jéem a gëmloo kilifa yi di leen ko wax pour nit ñi duñ fay mais fay moom dafa war léegi nag ñaata ngay fay ak nan nga koy fay ñoom loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo yilif dëkk bi te mu nekk un titre foncier global titre foncier bi nga yilif nga xool nan la leen nit ñi di jàppale ci loolu parce que mënul leen mënoo ko gérer totalement d'autant plus que sax dañuy wax ñoo ko gérer mais presque gérer wuñ ko parce que courant yeeg yooyu état bi moo koy fay xam nga li mu wax kon ça veut dire que ñoom aussi war nañu mën a def benn effort dugal ko ci pour que ndox mi mën a Euh, même bu réglé wul aussi mu mën a réglé ci yenn gox yi à peut-être cinquante soixante wala soixante-dix pour cent.